ay jërë ngeen jëf mbokk yi seen LVD TV la voix de Ndiamé Production mbokk yi nag eh, ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci Ngor waaye Babacar dañuy waajal nag le 9 mars et eh, le 9 mars nag eh, bésu espoir la ay xale rek ñoo ciy bëri ay xale yoo xam ne nii bu jógee dañuy ànd ak fu ñu dëkk ñëw Babacar nag tey dama seetaan beneen xale boo xam ne nii Ibou Diop numéro 2 lay wuyoo waaye xale la ba mu duggee ci làmb léegi yàggul waaye mu ngi wane ay preuve ci bir lamb euh la bo xamni ni buñ ko gënee jappalé ngor guñ dëkk lu ne mën ko am ci lamb euh ndax jom ji ak jambar ji ak bëre gi lepp nga fi euh tay fi mu dëkk boo waxee benn ñaar dang nga tuddu lool nak nag jomam ak jàmbaaram moo ko may ibu Diop numéro 2 ma nga lay nuyu di la siyaare bu baax di la jox sa wàcc waay eh, nga jëm nak ci bés bu am solo muy le 9 mars gënaaw mëna a nuyowee nuyoo waajal le 9 mars ginnaaw bi ñu gërëm suñu ñaari waajur di sant di la nuyu yow Badou Mbaye di nuyu si caméraman Babacar Khadim Thiam waaw ah, ginnaaw bi ñu nuyoo waa di nuyu waa Ngor gi yëpp nag lu ñun ay xale la ñu dara amuñu dara itam dañuy jéem rek waaw ah, di nuyu waa Ngor yëpp kullu rek dëkk ku yeewoo Ngor rek ñu ngi lay hmm. ñaan si waa dëkk bi nga xamante ne amuñu lu dul Ngor hmm. te ñoom ñoo fi nekki mag ñoom lañ yaakaar ñu leen di tàllal suñuy loxo di sàkku ñu ñaanal le 9 mars ñaari ndam yi dafa nekk ndam yoo iya, xamante dañ ko soxlaa trop trop trop fii si ngor waaw di félicité itam encore si bu ngor ñi nga xamante ne amaguñ combat nekk si ikiri ngor yàlla may leen ay combat ku mel ni RTS fils de Ibou waaw iya, ak yeneen yu fi nekk liiru jaan xam nga bari nañ daal boo limee da ngay juum te di nuyu suñu coach yi fi nekk itam ku mel As Salam Philippe per ah, père Ibou Diop ay benn melo koon ay njool ñaaxar magi écrit bi daal ñi nga xamante ni fondé écrit bi ba dara dul dara ñoom ñoo fi ñu leen di nuyu ku nekk di nga di nga di nga di nga ñëwaat ci nuyoo bi le 9 mars waaw le 9 mars comme ñun doon waajee yeneen bés rek c'est pas la première fois ñu am bés xam nga am nañ fi ay bés ay bés ay bés mais bii nag daf si rawati quoi parce que def na ngay ku soxor mis nañ ko ci lamb quoi. ku mëna bëré bëre nekkatuñ si gan loolu yëpp xam nañ ko parce que kuy kuy dugg ci ay tournoi di bëré lu wara tolak ay 7 combats 6 combats di final non benn combat wax ci dooru mëna mëna ma badu ibu job da da nek daa daa rek. waaw waaye duma ma ci lamb de. waaw ku ne xam na lamb mom tank arbitre civilé wul ku nekk sa xalaat ngay wax ak sa gis-gis hmm. mais mom limu limu fokk ak limu xalaat wallahi bu arbitre civilé mu gis lu ko bett. nit nag boo ko xamul nit ki danaa la koo xamul rek dee ko na moom xamul lamb moom xam nga rek yàlla mooy dogal nit di nga sabablu dara yàlla dogal mais su lamb doxoon ni moo war a doxee kon man dépassé naa loolu ma ne xam nga cee bu baax cee xaw ma ko moso seetaan combat am mosuma seetaan combat am noo koy préparé ko koo xamul non loolu man moom wax franchement su ma la nëbbul ba du may bëre mbër bu ma xamul moo ma gën a neex que mbër bu ma xam parce que mbër boo ko xamee rek di nga am lu naan dinañ la moytuloo si moom lii wala dinañ la moytuloo si moom mbër bi nga xamul nag da ngay ñëw li nga gëm ak li nga liggéey moom ngay ñëw appliqué ko bu jeex. bu at mu mu dox sa kaw xeex ak yow. cee du dox sama kaw. cee du ñëw. du ñëw ah non ba. waaw bu sa kaw la jëm de. non du dox sama kaw man loolu xam naa ko cee du dox sama kaw. bu doon. cee cee cee mu ngi lay mu ngi mu ngi jàkkaarloo nga ne bu doon une seconde la paa bi ñu njëkk a seeti dem man maa man maa koy sekki. kon bu at bi fu cee ne nga fekk fa. nekk si làmb ji fu mu nekk bu néegee bu dawee si kaw tribune yi sax mu fekk ko. mu ngi lay si naan nga ne ka. ma ne la ci yow bu arbitre bi sifflé bul def dara taxawal li si war lépp man dinaa ko def. Hmm. incha allah yow daanu moo la war ñëwal rek daanu ñibbi soobee yàlla. Hmm. Eh, nekk xale. Eh, bëri journée boo xam ne nii comme ni ñu ko waxee léegi journée espoir la. waaw importance combat bi. boo gañee combat bi xam nga fu la mën a yóbbu ci làmb. waaw lu bi ñor nañu trop xam nañ buñ ko gañee ñu mën yóbbu si làmb. Hmm. parce que boo doon bëri ay combat préliminaire tey booy loolu fierté la quoi di sant itam promoteur bi di ko ñaanal fi promoteur yëpp àgg yàlla na ko ko yàlla mhm. loolu laa koy ñaax quoi eh, ci ci côté ci côté mobilisation ak côté ambiance loo ci wàcc mobilisation moom ku xam ngor xam na ne moom mbërëm ngor moom ngor liiru ngor sax bu doon génn yóbbaale mbooloo waa ngor ñoo mel noonu mhm. waaw euh, dompat sax ci sot la bokk. Mhm. nga xam nga ko xam léegi xam na ne mbokkam. Mhm. waaw loolu moom tiituñu si mhm. eh, eh, di di di préparer adversaire boo xam ne nii moo la xaw a ëpp laf tuuti. waaw est-ce que compliqué wul. xoolal xeeru ni mu tool am na ku sut xeeru ngoor sa moo sut xeeru ngoor. moo ko sut moo ko ëpp. loolu moom amul benn problème. kon côté boobu kon côté boobu amu ci benn benn ku tamul beure ku xamul beure wala ku tamul beure mo ci tiit ci am ay handicap wala da mhm. mais ñun juddu si beure yaru ci beure mag ci bëre waaw mo amuñu si lañ dara dara lu ñuy lu ñuy mhm. lu ñuy xalaat wala lu ñuy kii façon bu nekk daje naa moom waaw ci xam nga boros elban mhm. moko upp doole fuf dakh ko beure te damay beure mom awma ci ben handicap handicap eh, pour ñi pour ñi seen lvd TV ak ñi nga xam ñoom ñooy suivre lamb Ibou Diop numéro actuellement mu ci ñanda combat vidéo Diop ngi ci deux combats waaw ben victoire ben benn kan ak kan nga dan man ama bu yarax la mujj bëre moma ma hmm man dan bal ko du tiset eh. mais mhm. xalé bi nga dugg xalé ya. bi nga dugg dis na de non garaawut wallahi xasim loolu da après yow après après bu su lamb ji jeexee eh, nga na moom pourtant Ibou Diop min ni ma don gis ak Ibou Diop min ndeke du ben après ngay comprendre len len boy ñew da ngay suppalako kon loolu sax moom mhm. eh, est-ce que numéro 2 bien sûr ñun si box lañ njëkki avant ñuy nekk di dugg si làmb di am ay combat arène nii Xeeru Ngor numéro 1 ku ko xam-xam ne ko mën a dañu doon yóbbu géej Xeeru Ngor mosuma dóor ku boo xamante dama yaakaar sama bëñ dafa tëdd. cee cee cee Ibou mu ngi lay dégg si boxe mu sama dóor coup boo xam ne dama jàpp ne man aw ma sama bëñ dafa tëdd ndeke fii moo xar coup moom nekkul loo xamante lu lu ñu kii la loolu ñu mis la depuis ñuy xale ci keppaaru booy bawal booy bawal ku ko xam-xam ne ku ko dàq encaissé amul non xeex moom ragaluñ ci dara dara dara dara ani ani booy bawal yaa ngi koy dégg booy bawal waaw ñu ngi dégg yéen conseil la jox ci combat bi ah loolu du ma ko wax mais <laughs> mi jox ay conseil mais ma wax da du ma wax li ma wax hmm. waaw Mm. naa ko noppi waale rek ba bés ba ma def ko ba pare nga soog a xam kii lii la ko Boy Paul wax. mais bu combat bu yàggee ak bu yéexee lépp arrange na la. non man boo xoolee sama poids ëppoon na ni ëppoon naa ni. Mm. mais dañ na ma li nga poids bu poids suñ ko suñ Ibou Diop mm, moom bëggul poids. noo man di ko toll boo doon posé cent vingt kilos itam sa combat ci deux semaine mun na la retailler ba ba nim soxla yow nga mel ko moom noonu. mais état de bi nga yoon nii dal sa xel yow. si yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que mën naa mën naa bëri fii ba suba duma duma sentir coono hmm. waaw te moom sant nañ ci yàlla bu baax di ci sant Père Ibou bu baax a baax suñu turam waaw hmm. deux heures lay doon wala non loolu moom jërul xalaat deux heures yi moom insha allahu rabbi ñaan nañ ko yàlla te am nañ si njort ne dinañu dinañu ko may yow yaay ubbi maay ubbi foog ñëw tëj hmm. mais est-ce que ubbi mënul nekk pression non non non non dama la lamb mënutuñ si am pression franchement man sama gëm-gëm dama jàpp ne làmb mënatuma si am pression. ndax xam naa ne le neuf booy bëri ngóor gépp nañ génne. waaw loolu mooy tax mu neex nag te man dama tàmm man. yow yow du nekk pression mais motivation lay doon pour yow. parce que xam nga tey ngay génn ànd ak sa waa dëkk boo gëstoo gis sa waa dëkk loolu dafa neex. Hmm. si koo xamante ne day génn moom kese du ànd ak kenn saagam hmm. kese moo koy wéttali. Hmm. loolu mënul nekk pression ci eh, a e nga wax ki nga xamni ne moy ci li nga ko bëgg def après ñu bayila nga gëreem ku la neex waaw ci mom li ma koy wax li comme li ma ubbé rek na mhm. taxaw xaar rek mom lepp lo lepp lu war ci lamb ji insha allah ko def dina xex dina bëri te bu soobé yalla amna naa yaakaar ne ko daal kon ko upp doole doole ku dàq bëre ko upp mbolo yalla ko yalla may ndam duma taxa dàq mom moom kooku mën naa ko jàngal bëre hmm. waaw kooku mom mën naa ko jàngal bëre mën naa toog mën naa ko defal ni bul def lii defal nii bul def lii loolu yàlla def na ko si ñun ak yomb waaw non lu moom man la hmm. boo defoon micro trottoir fi laajte kan mooy Ibou Diop xam nañ xam nañ ma bu baax a baax xam nañ ne waa ji daa mën a bëri macha allah hmm. waaw yàlla bu ci cat dugg rek lu bëri moom moom lu ñu tarbiyo la quoi lu yàgg si ñun la waaw ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw di wax rek di gërëmaat waa Ngor rek di leen ñaax itam ñu gën a ci combat yi muy man muy fëgale muy képp kuy doomu Ngor rek di takk ngemb di dem stade wala ngay yëngu ci bépp sport rek hmm. ñu ngi di ñaan quoi ñu ñaanal ñu taxawuñu am na ñun amuñu lu dul Ngor gëmuñu lu dul ngor itam couleur ngor lañuy défendre waaw di di ñaax ñepp ñu ñëw japp leen ah di gëreum sama grand yi rek ku ci melni Daoud daaw mbow international bi nga xamanteni ni momay fayal sal di mo wo di mo yóbbu entraînement lu war ci man rek ñu ngi koy def quoi Daoud sama mag boobu sama doomu ni jaay la mais jappé mo doomu ni doomu bàjjan doomu ni jay quoi e daf ma jàppee comme ku mu nday ak bay bu ma togué ñew ma entraînement sax day koy jaral dag ay dem ñew xol ma xam ci lan la nek pour ñew sport wala dara di sonu ci man bu baaxa baax di gëreem aussi tam melni xéru ngor 2 ok suma doomu nday la mi ngi sonu ci man site euh, fils de Ibou RTS wa équipe yépp dal kulim danga ku lim da ngay juu aussi tam di wo ñi nga xamante moy sama mbokk séeréer di wo waa wa jofior Diofior Fimela ba jilor fep fo xamante mel ni séeréer nga fa rek ma ngi lay ko nga ñew ci combat surtout di jël nuyo wa Thiadiaye di sama loxo grand frère ku ñuy wax Maga ak morgu sas ak Pam Dem ah di jox di wo sama gaay yëpp nak di wo kenn ko xamante mel ni moom la wax moy maire di sama papa Omar Youm ma ngi koy wo ci combat bi mu ñew japp ci bu baax baax parce que moom sama papa ñu yàggale won ba sama papa tuddee na ko doom kooku dafa nekk gaani yalla nako yalla Omar mais ma ngi ay Alizé ah Isa Lelo ay Papa jata Baax Sarr Caaci Daouda Mbër Mbëtam Noor waaw mbëri Caaja yëpp maa leen di woo ñu ñëw taxaw seen doom xam nga euh, gunge ma ñu ndam aussi itam di woo waa Diofior ku si mel ni sama doomu ndey Doudou yi nga xam ne dañoo defandoo lu bari Babou saar Ndamal Daaru ah maam Fade mbëru Diofior yëpp ay Seex Caam ay maam Fay képp kuy takk ngemb nekk Diofior rek ñu ngi lay woo si combat bi ay Mbin Koli ay Jawrin di gërëm itam kenn koo xamante ne kenn la si man ñu koy wax Abbas Abbas Faye Abbas suma grand bu baax la su ma amee combat du tëdd du nelaw da siy dox di si def li ko war ak sam benn booy koli waaye nga xam moo yor sumay bagage ay baabu ay la gaa yëpp daal maa leen di woow bu baax a baax a baax surtout nag waa Caajaay maa leen di woow ci bés bi bu baax a baax nañ si feeñ di gërëm sam boo yëpp ay fàllu ay aale ay siñ Fall yéen ñëpp maa leen di woo si combat bi quoi bàyyiwuma kenn xam na ah. xel day fàttu li nga nekk sa xol yëpp pour nga wax doo ko mën a wax oo ñëpp rek maa ngi woo ñëpp daal caajaay Diop yooyu Sénégal yëpp waaw Sénégal yëpp waa Touba di nuyu sama papa ak sama yaay di leen ñaanal yàlla may leen fanu guddam bañ fekke sama njëriñ quoi gërëm sama papa Baye Tafa itam di leen sant bu baax a baax di leen gërëm daal di sant waa Ngor